damay soxla ay kàngami journaliste pour wax ak ñoom ci réew xale yi dem ci géej gi bëggatuma ñu dem nañu toog Serigne Ba da leen tëj solution. ñu xam ne projet Al-Mountakha ñoo koy financé suñu bopp yaakaar nañu ci Macky nii Idrissa nii Demba nii Diohé. weccat nag du ko financé 73 milliards moo koy financé. te day am. bu ko monsieur Ndiaye am na beneen. ndax xadd fakka kabla moo xew boobu deux cent quatre-vingt-sept milliards moo koy financé ca kanam dañuy tax xam ne projet yooyu fukki weer ak juróom bu ñu ko fi amaatee ñu xam ne kenn du ko tëdd di ko yërëm nañ leen lool surtout ñoom ñaar ñooñu dama ni leen woon sax dama ne woon damay fexe ak jàmbaar ba du ma leen tudd waaye ak Idi mënuma leen a ñàkk ba ñu tudd Idi fii lañ juddoo doom si biir doon Thiès def si biir def mu nga ñàkk ba ñu ma gën a am fu ma jaaree moom ci na dafa am fu ma jaaree ñëw waaye seen i tànk xam lu yii ci samay yër ay leer dama ci jàpp dañoo comprendre lu. moo tax dama leen reproché dara li ci kanam rawut di bët retrouvaille bi sànni leen naa ko lool waaye nag bu mu yem ci ñoom ak seen intérêt nañu xool l' intérêt du peuple sénégalais. jàpp naa ne léegi léegi moom la ñu waaye soppi dëgg dëgg soppi dafa jot waxuñu rek ñoom ci seen biir waxu rek ñoom ci seen biir déedéet soppi dëgg dëgg soppi dafa jot lan mooy dëgg dëgg soppi mooy fu dëgg ne comme comme nga ne ko engrais loolu mooy dëgg dëgg soppi bu dëgg fëggee buntu ubbil ko dëgg la fare ko fa bu njëkk dañu naan Touba néew bu fa dugg raw sàcc bu fa dugg raw Touba nag yenn saa yi yëngu fa néew malaayika yi joxal ko yóbbu ko fete man moom maa la wax loolu yenn saa yi itam nga sàcc fa te doo raw waxe wolof la rek